En zone rurale, plus précisément à Noto-Guidjama, la pêche occupe une place importante. Néanmoins, ces pêcheurs rencontrent nombreuses difficultés. Batifal, pêcheur, revient sur ces problèmes rencontrés. Madame, si la mer ne peut pas fournir du poisson à tes pêcheurs, tes ressourcissants, et si la même mer est entre les mains d'autres nationalités, cela pose problème. Et c'est ce qui explique leur départ vers d'autres cieux, vers d'autres pays, connus comme la Mauritanie, la Guinée-Bissau, pour chercher des licences de pêche, ou, même à Conakry. Et récemment, vous avez constaté qu'en Guinée-Conakry, on a arrosé 34 de pirogues le motif de tout cela, c'est la non-accessibilité à la mer. Le gouvernement doit cesser de brader nos eaux. Nous, pêcheurs, souhaitons que tout cela s'arrête. L'AMPFAL met l'accent sur la solution qui réside sur l'arrêt des licences de pêche qu'on livre aux bateaux industriels. C'est très difficile de pratiquer la pêche car il n'y a pas de poissons dans la mer à cause des bateaux industriels. Nous, on est obligés de camper ici pour avoir des poissons. La solution dans tout ça, c'est d'arrêter les liances de pêche qu'on livre aux grands bateaux car ça nous empêche d'avoir des poissons. Selon Mustapha Diouf, pour faire face à cette situation, les pêcheurs essayent de se regrouper autour des groupements au GIE. E. Notre premier problème ici, c'est l'accessibilité de notre lieu de pêche, notre lieu de travail. Il nous faut des pistes accessibles où nous pouvons écouler nos marchandises, nos produits. Nous avons ici des bâches, des tentes que vous apercevez là. La seule sécurité qu'il y a ici, c'est nous qui l'avons assurée. Et c'est ce qui a encouragé les gens à venir ici. À la croire, la localité de Notogui Diamant renferme une biodiversité au niveau de sa pêche. ñu nekk fi ci kaw gi fu ñuy wax Notogui Diamant Fi nak li di nap gi lu fi am solo la ginnaaw lolu nak ñi di kat yi dañuy jankontel ay tolof tolof ci seenub liggéey Bacc faal mu ngi dellu ci ci coono yi ñi am ngir mëna a wéyal seenub liggéey. Tay fi tey sa géej. ñi nga xamante ne ñooy say mool doon say doomu réew maanaam jën yu ni soxla sa bu leen ko mënul jox nga wëlbatikuwaat jaay géej gi mooy waral ñuy jóg di dem fu mel nag Mauritanie wala ñu jóg dem fu mel nag Guinée Bissau di wut ay licence de pêche wala ñu bënn bu Bissau dem ba ay Conakry bu yàggul rek dégg ngeen nis ay pirogue Sénégal navire Guinée Conakry bi téye na leen lu mot ay 34 pirogue te loolu yëpp warul li ko waral nag mooy maanaam gouverne gouvernement bi jaay bi ñuy jaay seen géej loolu la ñu war dakkal ndax maanaam tey fi tey géej gi bu fekkee ni am na benn diggante boo xamante ni bote yi nekkatuñu ci rek maanaam ñun moo li ñu bëgg géej gi dañ ko satisfaire ndax jën yi dañu wàcc si normal mais maanaam jën yi bu waree wàcc ay boto nekk si kël di ko kar kon ñun day am problème. Lamp Fall mu ngi wax ci saafara yi ñu war a jël. te nekk lu dul arrêté licence de pêche yi ñuy jox gaalu looco yu mag yi. bato yi nga xamante ne moom lañ jaay géej gi bato yooyu laa leen ñu jéem ko arrêté bu buñ ko mënut a arrêté ñu wàññi ko parce que li gën a wàññi jën ci Sénégal tey ji loolu ci la bokk boo gisee jéggaani bi yëpp géej gi moo ñàkk jën mais bu géej amul woon jën boo amul jën kon tey ji laa ni gaal yi di dem di rungu amaana du demee noonu mais géej gi moo amul jën amatul jën gaalu mbàllaaw tey ji dañ daan mbàllaaw tey ji boo gisee ñu ñëw fii campé tey ji Kayar lan daan yem ci Mballaaw lan moo tax ñuy campé fii tey ji am na lu tax géej moo wàññeeku jën moo wàññeeku moo waral tey ji ñëw campé fi ñu arrêté licence de pêche yi même buñ ko mënta arrêté it yaa ngi wàññi ko wàññi ko bu baax parce que loolu bokk na ci lu gàllankoor mool. bu ñu sukkandikoo ci kii di Moustapha Diouf ñoom ñii di nappkat yi nag bëgg nañoo jàppale seen bopp maanaam nekk ci ay groupement wala GIE comme ni ko nappkatu Kayaar yi di ko defee. fii ñun suñu première problème fi nootoo mooy yoon. yoon tey jii bu ñu jàppoon jën fii premièrement dañuy am problème yoon bi accès bi pour pour oto ñëw jël si ko sax day am problème kon xam nga déjà am nañ problème mu yoon deuxièmement nekkin bi fii gis nga ko hmm? ay bâche la ñuy defar def ay xayma pour mën ci si fanaan te yooyu yëpp kuñ ci jàppale woon tamit ñu jël. ci li ñu mën a jàpp ni localité bii di Notto guy Diamant am na biodiversité bu jëm ci napp gi.